asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di leen ziar di wax naan mbokk bari ñu ngi ñuy demandé pour ñu mën a yéen waxtaan waaye. gis ngeen fi ñu koy defee dafa xat lool nekk ci ay vacances tuuti daanaka euh, dañ noonu dañuy bàyyi ba dellu sooga sooga def live waaye ci am ñu bari ñu ñuy woo naan bu ñu sañoon ñu def waxtaan ci xew-xew réew mi comme ñoo ko diggaale woon ak askan wi waaye dañu ne woon dañuy bàyyi ba dellu ci kër ga ndax dañoo nekk bitim réew ci ci ak njaboot gi nekk ci ay waaye am na ci ñoo xam na ñoom biñ la bàyyi nga dallu biñ la bàyyi nga noppalu ndax lapato yi boo leen toppee ku ci lu ñu am yóbbu sëriñ bi bàyyi loolu sëriñ bi liggéey àddee jox sëriñ bi ñoom loolu la ñu xam lu ñu liggéey jox sëriñ bi di xaar àjjana alors man nag bokkuma ci ñooñu man damay liggéey di dund ak dundal sama njaboot ak di xayaat bu baax a baax a baax boole ko di jaamu yàlla joxuma benn sëriñ di faramali xalaatuma ko sax xaw ku ñu nafaay man bokkuma ci donc fi may laay fee ni dégg ngeen bruit bi dafa bari coow ndax mbokk yi ni dama daal il faut que nga génn ñu déglu la ndax coow li bari na wax ji ah taaliba yaa ngay yuuxu sëriñ saa ngay tëkkuwaate kenn ku ne yaa ngi tam sama borom dëmm ne dangay saaga kii day saaga kii day lii kenn ku ne yaa ngi tagg kenn ku ne yaa ngi yàq sama borom ne réew mu jaxasoo la c'est normal ndax kat yi muy sëriñ Cheikh kan ñi ngi tudde ay sëriñ ci mara bo nga xam ñam ay guru lañu ay ta ay kat lañu man dama neewon duma wax ak yeen tank de luuma ci nit man di hayat bu baax maa ngi ci geej ge jaxan gant bi di dal sama kaw may nan sama yu sedd ci wu wo ben sëriñ joxuma sama loxo ben sëriñ waaw ñu dugg ngir ñaanal ma torox waaye moom bu fekkente ne lii a nekk ma torox moom yàlla naa yàgg torox maa ngi nii tiim wàjj yeeg crevette yeeg te joxuma leen seen sama loxo kenn du tamit sama loxo ànd ak sama madam mu nekk sama wet doom dégg maam yéen nag yéen a ngi bëgg a dee conseiller nag seen sëriñ da ngeen dee ànd ak ñoom tàbbi safara yéen ñëpp seen àdduna safara la doon seen àllaax yi nekk safara kon sama ne woon du ma ci wax les chers vêtements kon xaw ma ñu nekk safara waaye man bokkuma ci man moom sama àdduna dama ko laala ba mu sax sàpp sàpp sàpp sàpp cere gi suuf sax cere wata boor def man jël samay vacances yi vacances ànd sama njaboot ci àdduna bi xool ni ko yàlla bindee rafetaayu àdduna bi géej yeeg nit ñi yàlla bindee gàncax yeeg garab yeeg culture yeeg aada yeeg nit ñu wuute yàlla bind ñëpp yàlla bind leen ci xarañ ci fam mooy war àdduna bi ma gën a xam di di ko gëstu di sant yàlla bu baax di jëluma sama addi di yóbbu Touba ci a nekk Njaasaan nekk Yoof joxuma kenn dix francs Mali maa lànk xalaatuma ko mu nekk làppato kenn toog di nax nit ñi naan sama maama def lii sama maamale may leen yéen gisagu leen dara gis naa ñu ma nay ay vidéo ñu bari ay taalibe bu ñu jàpp Tuuba du ma toj oto ma kër ma ne ko donc nañ ko rey nañ ko rey na dee sama yoon ñëw ku joxe sa bopp kay moomu too sa ku ne fekk nit maamu jàmbur nga ne ko nga sànni sa maam ci sën ba dem topp maamu jàmbur kay bu ñu rey sama yoon da cee nekk amu leen benn njëriñ yéen làpp te taalibe yëpp bu ñu reyoon amu leen benn njëriñ defu ngeen setaan da ngeen ñëw pour yëkkati ay jox ñuy lekk di tool di leen seri seen i bus di leen bës bu ñu gisee jeeg bu tàng bu ngeen am ñu nangu ko ci yéen oto bu baax ñu seni ko ci yéen lu seni liggéey ñu lekk seni ñu ne ñu leen gën nday ñu leen gën seni ñu leen gën ay seni seeni maamaati maam seni gën seeni maamaati maam seeni seni gën seeni seni seeni baay gën seeni baay seeni dom ñu leen gën yéen seeni doom yi ëllëg seeni doom ñoom ëllëg ñooy gën seeni doom ëllëg seeni sëti seen ba bi tukki ngeen yalla mo bind loolu yalla mo bind ci aduna bi wacc ay yo xamne seenu xet ñoy gën ñepp daa iman ci ba keneen yalla di wal aduna bi ngeen seen ndox googu yeen li ngeen ma cee bëgg a dugal maa lànk man bokk ma ci kon kenn gënum dama sama vacances kenn duko yak waye ku suuf way na ngeen la ko ñooñu ñuy duma Touba di leen duma Tiwaawa rek di leen duma sa ñaseen nga cay yoof bu ngeen jóge nan politiciens dañu violent politiciens yi violent wuñ de yeen talibé yi sëriñ si yeen yor violence yéen na bëgg gëm gëmloo nit ñi par force ay tapalé ku ci am sa xalaat ku ci diingal walla nga fekk wala nga toog di joxe ay ndégal naan dañu toj ak nañu daj sa yow ni ko liggéey di jooy yaa ngi toog lépp di la fekk ci jub ñàkk di di liggéey nga ko fa mu liggéey yàq liggéey di ko wax ngeen toj otoom nar koo rey ana police ana gendarmerie ana justice réew mi dara am ndax duma ko leen neex toj lu kenn du saqat man bokkuma ci ay lappato ngeen yéen ñëpp ay jaam ngeen ay esclave ngeen da ngeen nekk ci réew moo xam ne amu leen ay ak amu leen ay yelleef sañu leen a wax seen xalaat jëmale ko ci Mountakha Mbacké sañu leen a wax seen xalaat jëmale ko ci Doudou Micou Diop sañu leen a wax seen xalaat jëmale ko ci ñaari cerno yi bi ci kaw bi ci suuf taal yi kenn ci yéen amul sañ-sañu ubbi gémmiñam wax li xalaat ci xalaatu sëñ Mountakha Mbacké wala sëñ Mbaye Sy Mansour wala kenn koo xam ne xalif fa ci yi ngeen nekk Macky Sall ngeen yàpp ya, bàyyi leen Macky Sall li Macky Sall def ci seen kaw moom la seen xale yi def seen kaw te kenn soqati du leen ay nit du ngeen ay nit su ma ko naree dund loolu gedd réew mi bàyyi leen Sénégal mais man duma nekk jaamu kenn golo di bay baabu di dunde may ñàkk ñàkk di leen jox ñuy lekk jabar ju tàng ñu jël ganaar bu tàng ñu dagg pooj ba liggéey lu ma liggéey ñu jël ko oto bu tàng ñu la jox ma yor ay taax yu rëy ci lan takk ko seen i maam kon ak njaam la ak esclavage dama koy xeex son bi baaxul parce que son bi baax na ah le son mooy le son Nossa. Est-ce qu'on sont né? bar, non Est-ce qu'on sont au bar, non barulho. ngeen son bi baaxul son bi baaxul. Bah, il y a des échos waaw parce que ah, dama nekk ci vacances nag waaw. yenn son bi baaxul ah est-ce que son bi baax na. est-ce que son bi baax na bu son bi baaxee ngeen wax su baaxul ñu bàyyi ba ma dellu daara ji rek dañoo nekk ci ah c'est ok waaw dafa am musique nag xam nga fi ma nekk nag dama nekk ci ab ab hôtel nag ah ñi ngi def seen ñi ngi waagi def seen orchestre yi teg seen musique yi génne seen musiciens yi ak seen euh, gaa yi jël seen apéritif apéro kenn yu sedd génne bong bong yeeg beñe yeeg ñoom crevette ak ñoom langouste teg ci taabal ji gaa yi di di di mos yooyu moom moo jant baa ngi tàppe nii ci piscine baa ngi chauffé ah, géej gaa ngi dégg di di di di di di génne ngelaw lu neex ah, musique bi hôtel nag moom xam ngeen yéen a a xam daal moo tax euh, wax gi du du neex comme ni ngeen koy tàmmale amee su ñu nekkee ci kër ga dañoo génn nag dañoo génn newuñu ci kër ga moo tax xam naa dana bari ay ñoxor ñoxor yu ngay dégg ay musique ak ñuy romb ak ndax ñoo nga ràccu watu dégg nga maam yooyee yu bakkane yooyee àdduna yooyee ñu leen tere yéen naan leen non non bu leen yi àdduna àdduna dafa am solo da ngay dund ci àdduna ba mel ne ku dul dee waaye loo dund dund dund dund lépp loo xam ne lu dagan la lu yàlla xaraamalul te jaxañ ko ci àdduna bi yow doomu aadama bi yow la ñeel fexeel ba mën caa jot dund ko dund wu sell woo xam ne yàlla xaraamalu ko boo ca jógee booy jaamu yàlla na nga jaamu yàlla ba mel ne àdduna bi dara néew fi ba nga yaakaar ne boo noppee dee loolu lañ yàlla sant da ngay dund bu baax jaamu yàlla bu baax waaye ñu la nga bàyyi bii jàpp be yàlla néew kenn na fi nekk di ko jaamu képp képp képp képp képp képp képp képp ba dund yàlla ko kenn daf ne dund leen waaye jaamu leen yàlla waaw ah. yàlla daf ñu dunduloo ay jaamuloo ñu yàlla waaye dañ leen di nax seen sëriñ ci nga xam ne dégguñu diine xamuñu yàlla xamuñu dara ay nit lañ yoo xam ne ki seen bopp lañ teg teg seen mafia politico maraboutique di dund gi seen kaw di leen nax di leen gëm àdduna amul solo te moom mi la koy wax kat loo liggéey mu laaj la ko ci àddiya ji yor ay otoom yu baax ak i jéegam yu baax a baax a baax baax teg wiskiyam di mos wiski kon naan la àdduna amul solo <laughs> waaw ñun donc du ngeen ñu kenn du ñu dëkkal fenn naan am li am imam waaw am na côté boo xam ne boo ko xoolee ci man imam laa waaye nag du ma imaamu seen imam yooyu de imam buy dund laa buy xayaat di lekk lu neex di naan lu sedd di dem fi ci bërëb yu baax ci àdduna bi di wër fépp yow sama bët ak sama tànk bi di dox di dund dund gu nooy nepp nepp nepp li seen sëriñ yi bëgg moom laa bëgg waaye nag différence mooy sama doole laa ko def daf ma ko ci ñàkku kenn man du ma lekk waaye naan ay ustaase ki ay dëddu àdduna ak yooyu ay caaxaan la àdduna àdduna yàlla bind ko dëxëñ fi géej géej li fi yàlla def ci àdduna bi yëpp ni mu rafetee ni ko yàlla dëxëñ ngeen yaakaar ne yàlla da koo bind pour sànni ko àdduna àdduna yàlla da bind parce que àdduna xottu la képp ku naan na àdduna xottu la utal paaka rendi ko sam noonu la àdduna kenn du ko caaxaan mënoo am dara yowmal xiyaam loo xam ne liggéeyu ko fi ci àdduna bi ñu boo xam ne loo am ëllëg fi nga ko jëlee ñu tuutal la ko doyadal la ko sànnil la ko ne la amul njëriñ te ki la koy wax moom boo demee këram mi ngi ay milliards yor ay oto yor ay jéegi dul jeex jigéen ñi lay rangale di mos guddi gi mu mos jigéen ki bi mos démb du bokk kii mos tey ci turu yàlla la koy mosee ak alal ci dina paaje gu dégg bëccëg bëgg laa teg ab làppato liggéey di ko jox ba ma ko dalay wax kenn xamul kañ la saaga ngeen ma nday yàq ngeen ma lu ne léegi nag ñëpp ngi koy wax léegi taalibe yëpp a ngi yeewu léegi ñëpp a ngi yeewu sëriñ ci léegi ne su ma waxee ñu saaga ma nday ndok man nag mosuma yéene sama dëgg yi nag moom dafa saf sàpp sàpp sàpp sàpp nekkaane entier léegi na yéen a ngi yeew man damaa tëdd maa nga tëdd ke sama transat jaaxaat ngelaw géej géej piscine baag bay romb may lekk sama crevette uma benn stress toroxuma yàllaa ngi may dimbali damaa kontaan ndax xam naa ne li ci kanam incha allahu rabbi fii ba at yàlla di tëj àdduna bi di taawal ñëpp bi si peñ Sénégal démb gi dootul bokk Sénégal tey gi ak Sénégal gi jëm sama xel dafa dal gi Sénégal day soppiku ci nii wala ci ne ndax yàlla moo jël àdduna bi dénk ko xut bu mag bi nga xam ne mooy xut bu zaman bi Mark Mark Zuckerberg moom la yàlla jox àdduna ne ko ciix téye ne ko dénk naa la ko gone gu ndaw nga ndax man yàlla xamewuma gone ak mag maay xool ku ma sopp ma dénk la àdduna yow nag yow Mark Zuckerberg yaay sama xut bu zaman àdduna bi fi mu ni nii moo ko poñe teeku ba ma ba may wax tollu ki sama vacances jaaxaan gi sama watu piscine di lekk samay crevette may wax ngeen may dégg waaw ñu ngi neex yu dal bu ngeen déglee musique bi ni muy génnee ndànk-ndànk ah ab euh, orchestre lañ teg waa gi di def jazz waaw ah, ñu ngi doon yor seen saxophone di génne musique bu neex a neex macha allah yu sedd yi daa koy crevette ñoom seen da ngay yëkkati baaraam rek ñu indi la tegale ci ko taabal ci defal la ci ñoom citron ñoom sprite ñoom euh, jabalo mant boo xam ne yéen a ma gën a xam yooyu yu xayaat yu ko xaraamuñ kay dañ ciy jëfandikoo baax pour ñun la yii yëpp yàlla indiwu ko fi pour xar yeeg bëy yi pour doomu aadama yi waaye yéen dañu leen di nax ba ngeen juddoo ba léegi dund leen seen àdduna yëpp safara la nar a nekk ngeen nar a dee ci ak gëmadi yàlla ay nit yu leen di ngeen dee ànd ak ñoom tàbbi safara ñoom ñii seen sëriñ si ñoom même ëllëg buñu tàbbi safara ñoom ñi noos seen àdduna ñoom fexe nañ ba def ko mu nekk àjjana sëriñ si ngeen topp ñoom seen àjjana seen àdduna bi fexe nañ ba def ko àjjana ci seen poos yéen taalibe yi fexe nañ ba jël li nekk seen poos tabax seen àdduna seen àjjana fii ñoom bu ëllëgee même bu ñu tàbbi safara tamit jot nañoo noos ci àdduna yéen nag seen àdduna da ngeen koo ñàkk ñàkk boo xam ne ñoom ñoo ko teg te bu ëllëgee bu ngeen naree da ngeen nar a dee ànd ñoom tabbi safara yéen da ngeen di ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira à la limite ngeen jéemoon dund sax ci àdduna

ñu daal di ñu daal di ñu daal di defar ba bu baax defar ba mu baax pour pour pour doomu aadama yi képp la loolu laa yéene Sénégalais yëpp yéen ñëpp lii laa leen yéene su wax guddi ak bëccëg di xeex guddi ak bëccëg li bëgg mooy ngeen dund dund laa leen yéene dund gu mucc ayib dund gu sell dund goo xam ne nekkul ci ay tàllal sa loxo ma ñaan la dund goo xam ne du Muntaxa Mbàkke ko yore du Mbay Si Mansuur ko yore du benn xalifa général ko yore dund goo xam ne doomu aadama moo koy tabaxal boppam cim xel ak gëm boppam ak gëm réew waaye nag ngeen lànk ne loolu du ci am dégg nga di kon na ngeen fexe bay dund ndax dundu motax ngeen di xex motax ngeen taxaw kenn ko bëgg dund gis na ñu di dal ci ko président tunisien bi naan dafa raciste bàyyi leen président tunisien bi kooku racistul bu racistoon sénégalais yu bari duñ dem tunisie tunisie dañ ko tabax defar ko ba baax ngeen am lu yees lu nekk ci réew mi di Macky Sall ak liñ fi ñu àndal du ngeen sëqat jamono ci Macky Sall du ngeen sëqat jamono ci seen sëriñ si ngeen xam ne bu ngeen waxee ñu dumalu leen ut ay taaliba yu leen duma ba ngeen bëgg de tok seen seeni kër toj seeni oto du ngeen wu leen ci wax waye bu dee président Tunisie bi ngeen gën di mbepp mbepp mel ay yamb waaw dañu raciste yéen racisme baa Sénégal Macky Sall kan noo gëna raciste Macky ñi and ak do nga lay faddu ku àndul ak mom mu daan mu dal ci sa kaw Macky Sall ku àndul ak mom ci réew mu dal ci sa kaw ci café wala mu ray la ak ay seen seeni marabu yi ñu and ak ñom ñu tuumal nit kenn du ci wax ci yeen yéen da pat seen sëriñ si ànd ak Macky Sall yéen taalibe yi kenn du ci wax ay président Tunisie président Tunisie bu ko neexee mu tëj réewam ne bëgguma fee gis kenn au moins mi ngi ko assumé Sénégalais yi di ngeen yéen ab jàmbur ba nekk ci ba nekk ci am réewam di dogal la la ko soob ci réewam koy sikkee kooku am ku ko def ci seen wala ay sëriñ ak i président Macky Sall yu nekk ci réew mi yées président ko wax te du dama ne damay bàyyi ba ñibbi parce que fii dafa bari bruit y a beaucoup d'activité tout ça xam naa yi xaw ma son bi baax na xaw ma baaxul dama ne woon damay bàyyi ba dellu ca daara ja def live comme ni ma koy defee waaye am ñu ma woo ñu bari na ma nooy foo nga génn géej nañ laa dégg patati patata ma xam na àq la xëy na effectivement maa ko déggee woon ñoom waaye waaye waaye eh, lu manti xew o oh, il faut ngeen yeewu rek te moom yeewu gi moom kenn duutu ko yalwaan yew gi par force lay am duñu ko yalwaan kenn duñu neex ma du ma neexal kenn layam layam yeeg nabb nabbeeg dé déedéet yeewu gi yéen taalibe yi da ngeen yeewu ci nii wala ci naa parce que Facebook baa ngi fekk réseaux sociaux yi da ngeen yeewu xanaa ngeen bañ a am téléphone dëkk ci àll ba baña amat téléphone mais tant que yéen ngeen sen téléphone yi di connecté wu di ngeen yeewu nek nit njaay par force par force kenn du leen neexal kenn du leen neexal loolu moy li nga xam il faut ngeen bayyi ci xel jéem a taxaw fipp gis ngeen Macky Sall mom nee day tourner économique gis ngeen ko dem na séju de ma nga dem tassé wa APR yi ben bokk yakkat ma ngay politique de nee na tournée économique waaye ma ngay politique gis ngeen ko di mun naa feqe moom Macky Sall bi ne nañ ko bàyyi mu toogaat moom Macky Sall mi nga xam ne bu seetee mun Mountakha mu ne ko dénk naa la Serigne Touba moom Macky Sall mi seeti Mbaye Sy Mansour mu naan ko vingt moins zéro égal deux moom Macky Sall moomu mooy wër di politique ne Ousmane Sonko du politique ne waa Pastef di ngeen def li ko yëngu ñu tëj waaye moom ak ñooñam ñi ngi dem fu leen neex ci réew mi di def lu leen neex comme réew mi réewum naa feq waaw sëriñ si ñoom sax ñoo def lu leen neex wax lu leen neex kenn du leen kenn du am xalaat ci seen xalaat xanaa mennum akayotoon moo koy am sañ ko yëkkati ñi des ñëpp dañ naan dañu dugg ci biir foos yi di mun muni kenn du ko yëkkati ku ko yëkkati ñu fekk la ko duma la ndax réewum dictature la réewum violence la la violence bi nekk ci kër tarixa yi moo gën a garaaw violence bi nekk ci politique violence fitna gi nekk ci tarixa yi nekkul sax ci politique bi tarixa yi ñoo ëpp fitna fuuf politique ndax Macky Sall mën nga ko wax lu la neex léegi-léeg léeg-léeg nga wax ko loo xam ne dara doo ci fekk léegi-léeg nga wax ko mu tëj la waaye Macky moom boo ko waxee lu la naqari da lay tëj Muntaxa nag boo ko waxee lu boo waxuma la nga wax ko lu ko naqari de waaye bu waxee benn ne lii la nga ne ko du lii Muntaxa mu mu dumalu la wala ñu wala mu yónne ay Baay Faal ñu duma la du mujj fenn gendarme yi policier yi kenn mu am réew bu mel noonu ngeen yéen société bi ngeen bëgg a tabax askan wi ngeen bëgg a tabax dafa war a nekk askan woo xam ne ki sant Mbàkke day am ay àq yoo xam ne ki sant Jaxu Mba da ko du ko am askan wi ngeen bëgg a taxawal ci réew mi mooy askan woo xam ne ki sant si Mbàkke Caw euh, Sekk ca Canaba ak keneen ak keneen ak keneen ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo nee na ñoo ñooy marabu yi ñoom ñoo ñee seeni doom ak seeni sët ci biir réew mi dañuy am àq ak yelleef yoo xam ne ak ay sañ-sañ yoo xam ne yow mi sant Jóob Njaay Jaxumba Saaña Sonko Jaata yow ak seene ki yooyu ak Faal yéen ñu ko sant yéen borom sant fukki jaay yi amu leen sañ-sañ yooyu ñoo ñu am mooy réew moo xam ne day am ñaari sañ-sañ ak ñaari façon nit ay bour ak i baadoolo ngeen société bobu ngeen bëgg yéen man ànduma ci mu ndax mbacke lu mu wax amna ci xalaat Macky Sall lu mu wax amna ci xalaat réew mi amul kenn ku fi wax tas bo waxe ba passé wax duma ci am xalaat mo xam xalaat la nga ca wax ma ak yow ñu bokk xalaat mo xam ñu ñak bokk xalaat duma la saga duma la yak dara waye dana indi sama xalaat tek ko ci sa kaw xalaat buñu andé àndee buñu àndu da nga xamné ànduma ak yow xalaat loolee ku ko bañ ci réew mi bay boo ngay takk sa bagaas réew mi parce que réew mi dañ koy démocratiser par force te Mark Zuckerberg mi nga xam ne moom la yàlla jox xarale yi te muy xutbu zaman bi incha allahu rabbi moo ñu xam ne bala maa dégg naan Macky Sall dictateur mais Macky Sall li muy def ci sëriñ si la ko gisee billahi Macky Sall li mu sañ def ci réew mi yëpp ci seen crise diine yi lu ko gis dafa xoolal këru diine yi ba gis ne taalibe yi dañ leen ci dictature nañu dund sëriñ dañ leen napp xoxatal leen ku yëngu ñu duma Macky Sall loolu foofu la ko jàngee mu ne ah kon ñii ay làpp foto lañ gëmuñu dara seen sëriñ si ñu topp nga xam ne man Macky dama leen a xam ñii ku ci nekk jàpp ku ma si jàppal ci jigéen jàpp naa la ci xaalis wala oto wala kër wala keneen ko duñu dara Macky xam na loolu parce que état la yore yàgg na ci xam xam na leen ñii nga xam ne duñu tus ndegam ñoo leen mën a def ay jaam ay làppate ngeen topp seen ginnaaw ñu xoqatal leen ba bu ñu sëqatee bu ngeen sëqatee ñu duma leen ut ñu leen dumalu ba ngeen ne nemm mel ne ay jaam ndegam sëriñ see man ci yéen waxutuma man yor armée yor justice yor police yor kaso yor ay liif yor lacrymogène moo tax Macky di leen duma guddee ak bëccëg du mujj parce que dafa gis seen sëriñ si di leen dumalu guddee ak bëccëg ngeen di mel ne ay làppatu loolu mooy dem ngeen ne kenn du ko wax man bokkuma ci su ma nekkoon ci réew ma rey ngeen bu yàgg wala ngeen tëj sama làmmiñ wala ngeen tuj ma ci kaso yi parce que man am na yoo xam ne mënu ma ko supporté ma takk samay bagage man abal leen réew moo xam ne réewum làppatu la man du ma dëkk ci réewum làppatu man dama gëm laay dund du ma tooñ waaye nag am naa sañ-sañ su ma bokkee ci réew comme ni nga ci bokkee yow muy déglu nga am ci kàddu ma am ci kàddu nga am ci xalaat ma am ci xalaat nga am ci jëf ma am ci jëf nga jëf ma jëf nga ne ma tax ngay jëfee nii nga wax ma wax nga ne mu tax ngay waxee nii ta yow nga am sañ-sañu am xalaat man ma am sama sañ-sañ ni ma bokkee ci réew mi ëppale wu dara nga am sa xalaat ma am sama xalaat nga ne ma sama xalaat du ma ko wax ci réew mi man réew ngeen bëgg a tabax yéen ban société ngeen bëgg tabax man bokkuma ci boobu société société boo xam ne ay bu rekki jaam la moom dama koy xeex loolu mooy lépp Macky inventé wu dara dafa ñëw ci réew mi gis ñëpp nekk ay jaam topp ay sëriñ ba bu sëriñ si juumee kenn du leen jubbante bu ñu waxul dëgg kenn du na waxuñu dëgg ñëpp dañuy mun mun ñëpp de pat Macky ne fii réewum jaam la ko am doole ko mën a dumawaate rek man nga fee toog Macky deful de xam na ne senegal utoo yat di dumawaate rek amul fit di dóor mun taxaa Mbàkke day toj di génne am ay Baay Faalam ñu koy dóor boo demee ca ñeseen nga dañuy dumawaat dañuy dóor boo demee ci sëriñ boo fi laal tarixa yi foo fi laal ñu tëkku la man mii di wax ak ñoom bés bu nekk dañu may tëkku tëkku amuñu xam-xam duñu wax ak yow xam-xam da ngay di teg ay histoire indi wax li xew di lay saaga ndey violence di la yéene musiba da nga torox da nga dee duñu wax ak yow mukk ci xam-xam dañ lay tëkku bëgg laa rey di la yéene musiba tareexe yi nekk ci réew mi yëpp amu ci ñenn kenn koy waxal wala nga laal sëriñam ci ay argument sëriñam def loo xam ne àndu ci nga lii sëriñ bi def àndu mu ci indi sa xalaat ak say lay wax lu tax àndoo ci nga wax ko ba leer amu ci benn taalibe wala benn ku bokk ci tarixa bi kuy ñëw indi ay lay yoo xam ne da koy teg ci xam teg ci argument wax wax déedéet saaga ndey la koy teg wala saaga bàyyi wala mu wax na lu bon loo xam ne yow sañoo ko wax lii moo nekk ci réew mi ngeen di xas Macky li Macky def ci yéen la ko gisee yéen ci bi tarixa yi nekk ci ay yoon yoo xam ne amul ci benn argument gëm loo xam ne mënoo koo layal su la ci Akhenaton posé wala Akhenaton indi loo xam ne xalaatoo ko wala Akhenaton indi la ci xam ne yow xamoo ko mu lu bees yow loo xam ne mënoo koo dégg nanguwoo ko dégg te loolu moo am nga saaga ko ndey wala nga tëkk ko au lieu nga ko li nga wax amul indil ko ay lay yuy wane ne loolu amul wala boo boo ko amul nga ànd ak moom ca la moo xam ne li mu wax moo a donte naqari na la nga muñ ko dégg da nga koy daggal yu saaga ndey tëkk ko da nga torox yéene ko nekk safara ak lépp nga ko fekk demeewul noonu ndax ngeen bëgg loo xam ne da ngeen ci dugg àjjana te mënu leen koo layal amul lenn lu luy dugal àjjana loo xam ne mënoo koo layal yéen li ngeen gëm mënu leen koo layal amul leen ci xam-xam fi ak ngeen waxee ngeen day saaga day kër saagawul kenn am na ñu ma big nag ñu bari ñu ma tàgg ñu ne ma wal fajri xaw ma yow lañ fa nekkee woon ñu ne day am ñu saaga kilifa yi mooy ne wal fajri dañu amul programme programme lañu dañoo jeexal amuñu inspiration ñoom bay def émission lu mu temps ni mu chéré amuñu luñ fay wax lu dul ay kuy saaga ku dul saaga luy saaga lan mooy saaga ak kuy saaga ku dul saaga loolu réew mi li fi nekk ci ay li fi nekk ci ay question li fi nekk ci ay li war a lijjanti ngeen teg ay nit ñoo xam ne kenn xamul fi ñu toog ci télé wal ba di lijjanti kuy saaga ku dul saaga kilifa diine ku foofu ngeen toll kilifa diine ñoom ne nañ léegi bu ñu waxee ñu saaga leen laaj dañ leen tax ñu leen saaga ak kuy saaga Sénégal mooy aada bi gën a taxaw Sénégal saaga moo fi jiitu diine saaga fi jiitu Serigne Touba moo fi jiitu Alaaji Malik saaga fi jiitu l'islam saaga mooy li gën a sax ci Sénégal Sénégal identité sénégalais mooy saaga ngeen nekk fi di débat ci ay saaga du ngeen ay nit ñii nag seen musique bi daa fort xaaral ma déplacé wu ndax mu gën a calme tuuti parce que seen musique bi c'est un peu fort ñoom ñi xayaat ñoom nekk amuñu ay maam yu baax na ñoom nekkuñu fi naan suñu maam baax a yëg moo julli fee kee def lii de ñu ngi defar bu baax peinture ba mu liis di dund seen dund nekkuñu fi naan suñu maam yu baax yaag suñu li yeeg suñu mag ñu baax ñeeg yu kenn xamul seen yooyee nga xam ne ajulum ngooñ ñoom ne wuñu fi yooyu de wu ndax mu ndax moom réewum làppato moom réewum làppato dong lay doon kenn mënu ci dara dara dara wax a wax bay bëgg a ndax bëgg ñu nekk ay nit wax a wax a wax a wax bay bëgg a ngir bëgg leen def ay nit ñu taxaw lang na ñoom ay jaam lañu bëgg doon dañoo juddu ci ak njaam ay nit lañu gëm ay buur lañu am ñoom ñooy jaam yi boo tuddee seen buur yi sax ñu saaga la ndey wala ñu bëgg laa rey <laughs> kenn mësta gis lu mel ni wallaay <laughs> tu travailles contre pro sama yoon newu ci may travailler contre Ousmane Sonko moo xam sama yoon newu ci bu def la contre Ousmane Sonko kon amul kon moo xam man liggéey ma Ousmane Sonko de man Sénégal laay liggéeyal tu travailles ko mooy gars yu Macky Sall yeeg ñi ànd ak Macky Sall gis nga ñooy dugg ci laay di ruube contre pro man dama laa wax Ousmane Sonko laay liggéeyal nag Ousmane Sonko def maa moom Ousmane Sonko dafa fay samay vacances ba Ousmane Sonko moom may wax lu wax ma dul wax man damaa Ousmane Sonko ëppale wu ma ci réew mi li am ci réew mi am ci réew mi xëy na taxaw na man néew waaye sama xalaat ci réew mi dama koy wax nga taxaw fi naan a tegi ni li ci nga boo waxee Macky Sall moo tax ngay wax wala sa wax xalaat ci réew nga ne ma nga ne fi wax dama yàqal Ousmane Sonko bu da ko yàqal moo xam na ko yàqal li may wax kenn mënu ma ko teree wax ba ma wax daal wax ba léegi seen wax yu dof yi ngeen di wax naan wuy da nga yàqal Ousmane Sonko ñi bu fekkee sama wax jee ko du ma sa falu ndax wax ji moom du dàkk incha allahu rabbi ndax li may xeex moo gën a foor falu Ousmane Sonko ni moo gën a garaaw Ousmane falu li may xeex même bu Ousmane Sonko falu te jógul fi Sonko du fi def dara li may xeex dama koo xam de man li may xeex moo mag Ousmane Sonko man li may xeex yéen Ousmane Sonko Ousmane Sonko pàcc la ci li ñuy xeex Ousmane Sonko benn mbir la ci li ñuy xeex Ousmane dund day dee te limay xex tank mi ngi dund ci rew mi rew mi soxaliku limay xex mom mak moom Ousmane Sonko dina fi jóge Ousmane Sonko jóge fi te limay xex buñu bu ñu ko jëlewul ci rew mi ku fi man mënti nek rew mi du dox ay làpp te ngeen dugal ay ay dof ngeen nekk mooy waa kon de wax rek làppato de parler xool cette façon xool cette dictature mel ne moom Pastef mbaayam moo wala ndayam wala da doon man arrête moom mu ma jox ay injonction mel ne Pastef moo ko moom da ci làppato bi nga doon arrête de parler de Pastef comme si Pastef sa sa yëfu nday wala sa yëfu baay ngay xool li réew mi ñu réew mi ñu ñu ne lii moo fi nekk Macky Sall lii lay def yow mi koy xeex bi yaa ngi Macky a dictature ku yaay wax ku nekk loo war a wax loo wër wax loo a def loo war def réew moo xam ne ku la gën a nekk dictateur nga nekk Macky moo tax mu mel ne yéen yéen Macky benn ngeen parce que amu leen tolérance amu leen esprit démocratique pour que liñ wax mu naqari la mais nga mën ko dégg xam ne ki koy wax yaa moom bokku xalaat kenn ku ne wax sa xalaat ci réew mi tant que réew foofu réew mi dem non non non bu ngeen fi jëlee Macky Sall du leen bàyyi wax làppato de di non làppato gi mooy chocolat bi làppato gi mooy chocolat bi làppato chocolat mooy chocolat bi ñuy raax ci mburu mi benn wetu mburu mi sëriñ bi la beneen wet gi di di Macky Sall bu ngeen daggee benn wet gi day nekk mburu boo xam ne dañ koo day am benn benn ŋàll bi day am chocolat ben bi am chocolat il faut ngeen bàyyi Macky Sall bàyyi sëriñ leen bàyyi wax làppato mais tant que yéen a ngi téye ci ñaan ñi xam ne mooy la mafia politico maraboutique bi may wax politicien bi Macky Sall la kii sëriñ bi tant que yéen ci ñaan ñi ay làppato ngeen di doon bis bu ngeen leen bàyyee ñoom ñaan ñëpp nag gëm seen bopp taxaw na xam ne réew mi xam-xam moo koy doxal ak bëgg réew mi ak àndandoo bokk nday bokk bàyyi uti xam-xam futteeku gàncax gi ci réew mi mbal mbel yi ci réew mi yëpp ñu pencoo ko tabax réew mi ku nekk jël ki sa wàll sa àq ak sa yelleef nga am ko kenn ku ci nekk di wax sa xalaat te kenn du la duma kenn ku ci nekk di wax sa xalaat donte jubluwuma ma nangu na sa xalaat la mu naqari ma lool waaye ma muñ ko xam na sa xalaat la loolu la yàlla dogal na réew mi mënu bokk jublu waaye nit ñi yàlla leen mbiru ñu wuute tant que loolu amul ak làppato du fi jógee liberté boobaa nag dootuma leen wax làppato waaye tant que yéen a ngi wax bi wala Macky Sall gi jógee gi dama leen koy wax de gis ku woo xas la yàq la doo li wax kër kër wala kat te la li ngay li ngay li nga xam la xam de li ngay wax yëpp mënu ko weddi de waaye nee na bu ko wax <laughs> parce que réew mi naafiq moo ko bari li ngay wax xam nañu dëgg la de waaye ñoom duñu ko wax te bëgguñu nga wax ko loolu mooy bàyyi réew mi mu dox ci seytaane réew mi na dox ci ay fen na dox ci ay tappale na dox ci naafiq na dox ci ndongotal na dox ci buure ki baadoole ki jaam bu ko kenn wax bàyyil noonu bu a wax lu sa bopp kër kër réew moo xam ne yow soo paree pour sacrifié sa sama wàll bu amee jafe bi mérite waaye defaloo réew mi dara waaye lu ball ci réew mi nga ne sama wàll bu ñuy wax lu defar réew mi sax nga noppil bu ko wax ndax naa fekk loolu musiba Ousmane Sonko mooy sama candidat wax naa leen ko loolu yàgg na ko moom laay jàppale pour mu falu gisuma ko ko gën ci réew mi ak yi may wax ak moo fi tane ku ko man ci réew mi ci xalaat ak ci mébét ak ci yéene ak ci dégg nga maam intention kooku kay man damay damay def le tout waaye Pastef damaa wax Pastef man Pastef damaa waaye xam Pastef mos ku ñuy wax Sonko tax su boo génne woon tey Ousmane Sonko passé ay lappatu rek nga fa passé ay lappatu rek di Ousmane Sonko moo ngi taxaw nekk nit ku dëgër am ambition am def parce parce bu ñu ko wax Ousmane Sonko tax kon am ci yoo xam ne ñàkk xam rek ak it di ruube ak di ku di wax ay waxam nga ñëw ruube ko wax wax a wax dugg ci yoo xam ne te yow taalu la laay foo kenn xamul dara ci ko taal dara ndul fekk foo fekk kuy dem rek nga ne nongu ca aw loosam ne ko yóbbaale ma ma texee dugg àjjana loolu rek ngeen fi nekk cogg waaye li ñuy xeex loolu ngañ Demba Touré naan li ñuy xeex fal Ousmane Sonko ci gën a tuuti déggu leen waxam ji wallahi déggu li muy wax <laughs> ngañ Demba Touré <laughs> ak danse waxoon naa leen ko leen la bokk na ci ñi gën a danse war Ousmane Sonko ngañ Demba Touré boobu nee li ñuy xeex pour Sénégal fal Ousmane Sonko moo ci ndaw ma ne ko ah wallahi yaa ngi wax ak ay làppato li ngay wax di gaay yi dégguñu ko de ba yebbe nga wàcce wàcceel wàcceel dose bi dose bi dafa fort la dose est trop forte ngañ dem wàññil wàññil wàññil bi dangar bi dafa fort ay làppato ngay wax wàcceel sa niveau Ousmane Sonko pour mu fàllu ci réew mi mooy li gën a ndaw ci li ñuy xeex pour ngeen xam li ñuy xeex lan la li ngi xeex dafa de li ñuy lu sori la li ñuy xeex lu métti la li ñuy xeex ah, leen xamu leen li xew wallaay xamuleen lu xew kon ki nga xam ne mooy gis naa ay ay faux intellectuels sénégalais ku nekk di bind di wax ratatata xam nga ñoom ils sont tellement aptes à critiquer les Tunisiens les présidents tunisiens waaye li xew ci réew mi Macky Sall di ko def doo ci dégg kat yu leen nit ces faux intellectuels yoo xam ne ils sont intellectuels que de rien du tout dara des pseudo intellectuels bu benn président wala Macron wax lii wala président du Niger nga gis ñu génn def ay contribution di bind ratatatatat waaye li xew ci réew mi Macky Sall di def kenn du ci wax ñooñu nañ ñu abal soxlawuñu leen kenn dégluwu leen kenn liiru leen ay hypocrite lañu ndax li ñu war a wax ci réew mi Macky Sall di ko sëf Sénégalais yi ànd ko sëriñ si marabu yi waxuñu ko ñu ngi ne pat waaye boo dee benn aali la wala Macron wala keneen ñu génn seenu làmmiñ di mbepp mbepp di wala na mën nañoo bind wala dégg nañuy tubaab soxlawuñu yooyu soxlawuñu leen comme yéen seen pas-pas yi a fekk ngelaw ngeen fas ci yéen seen pas-pas yi amu leen ci différent Mali pas-pas yi mënu leen cee am mënu leen ci am visa mënu leen ci am passeport mënu leen ci am ganaar mënu leen am jéeg bu xees mënu leen ci am oto mënu leen ci am ordonnance mënu leen ci am dépense mënu leen ci am kër mënu leen cee am dara seen pas-pas yi ngeen fas da ngeen a ne ci ngelaw li am différent Mali seen pas-pas ndegam àdduna bii ngeen ngeen ci mënta am dara bu ngeen dee ëllëg taxaw kanamu yàlla ba way dégg ka ci ngeen di xam ne seen pas-pas yi du dara du dara ba dara booloo jeex waaw lu tolloo ku teen teenub kafe mën leen ko jaam xam nga lu teenub café ba ab lu toll ne teen teenub mën leen ko am ci seen pas-pas yi du dara teenub kafe mooy une gorgée tu am naan une gorgée benn teenub café mun leen ko am seen pas-pas yi seen pas du dara da ngeen cee judd màgg ci toq ci ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu leen ci ba ngeen nooy na gerte gu ñu làpp ngeen nekk ay làppato ñu lapp leen ci ba ngeen nooy ci ak njaam waaye seen pas-pas yi lu leen ci am mun leen ci jël avion mun leen ci wër addu mun leen ci dem fenn amu leen ci leen lu nooy seen pas-pas yi dañ leen ci nax di leen dunde nga bàyyi suñu pas-pas suñu pas-pas yi lu leen fas yéen iya, lan ngeen fas lan li ngeen fas lu mu doon moom la leen laaj mooy ab guux waaw ab teen teenub café teenub café teenub café mooy ab guux mooy teenub café une gorgée tubaab ne une gorgée